dëgmal fukki fan yu mujj yi di leen balu àq di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu nangu suñuy jaamu yàlla jéggal nu suñuy bàkkaar te fekkewaat loonu ko at yu bari ñuy ñaan bu baax ak a ñaanal suñu kilifa cheikh Mouhamadul Muntaqa xafizahu llahu wa ayadahu wa nasarahu wa raa ñuy amaat mbégte ci teewaat ci jotaay bu tedd bii ngir rekk fàttalente lu jëm ci sunu diine ngir dundale ko weer wi di ko sante daayiratu muqaddamatul xidma ci taxawaay bu am solo bi yàlla suñu boroom nangu jëf yi te barkeel ko te yaatal ko tey ñu dellusiwaat ci tomb boo xam ne bu am solo la te mooy fiqhul awlawiyaat mooy ñu jéem a xam mbir mu nekk walla mbir yu nekk yañ ca war a jiital lan moo cay priorité loolu ab xam-xam la boo xam ne boroom xam-xam yi ñi ngi koy bàyyi xel di ci bind di ko leeral ndax dafa am solo ci dundu jullit yi ni nga xam ne fiqhul ibaadaat am ñuy jàng ni ñuy euh, jullee ni ñuy woore ni ñuy génnee azaka ni ñuy aje màkka ak mu am fiqhul muamalaat ni ñuy jaayanteek ni ñuy jëndanteeg ni la amee fiqhul maqaasidi àtte yi nga xam ne moom la suñu boroom teg jubluwaay ya ngir ëllëg lépp luñ bëgg a nas ñu xool la sharia jublu ñu mën koo dàkk fiqu awlawiyaat nag bokk ci yooyu nga xam ne dinañ ci ñëw ci kanam mooy jullit yi lu ñuy def lu nekk ñu jéem a xam lañ ca war a jiital la cay priorité loolu ab xam-xam la mu ñu war a mat bàyyi xel loolu nag waxtaane ko dafa am solo ndax suñu borom subhanahu wa taala bim nu bindee wàcce ci ñun alquranul karim yónni ci ñun yonent bi aleyhi salaatu wassalaam suñu dundu gi yépp daf koo nos te ko organiser amul genn wet ci suñu dundu te alquran wala lislaam jàngaluñu ci nañ ca war a doxale la ci ëpp solo bala ca gën a néew solo lislaam bàyyiwul dara ci loolu ma faratna fil kitaabi min shay noonu suñ borom nase nag nga xam ne nit ki dundam gi diggam ak boroomam lislaam xamal na ko ni ci war a doxale diggam ak mbindéef yi mu xamal ko ni mu war a doxale diggam ak boppam mu xamal ko ni mu war a doxale loolu nag jullit bi daf ko war a sàmmonteel ni lislaam tërale mbir mu nekk na ko lislaam jàppe mu jàppe ko noona loola bu ko defee moom ci lay muccee ci lay ame dund gu teey ci àdduna ci lay mucce yowmal qiyaam ni suñ boroom nase diine ji muy am yoo xam ne yu mënta ñàkk la ñu koy tudde ay daruriyaat am yoo xam ne mën naa ñàkk waaye nit ñi aajo nañ ko lool muy yaat ak yoo xam ne dafay mottali rekk bu buñ ko amee mu baax waaye buñ ko amul it mën naa bañ a jeexital ci dund gi noonu mu tërale diine jëf yiit it noonu la ëppantee solo yonent bi alayhi salaatu mi ngi koy wax ci xadis bu siiw boobu ne al imaanu bid'un wa sab'una shu'ba arfa'uha la ilaha illa allah wa adnaha imaatatu al aza anit tariq ne gëm yàlla ay banqaas la ba ci gën a kawe mooy tawxiit mooy wéetal yàlla muy laa ilaha illallah ba ca gën a suufee mooy fekk lor ci kaw yoon nga dindi ko kon nga gis na mu tàmbalee ca kaw ba ci suuf kon am na ci diggante bi ay daraja loolu nag sàmmonteeg moom day doon lu am solo ci dunduk nit ki ak dunduk jullit ñi ci seen bopp en tant que communauté sàmmonteeg loolu day jariñ nit ki waaye di jariñ mbooloo mi Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu doonoon koo xam ne ci ab njàngaleem ci ab yaram ku bàyyi woon xel li ëpp solo la mbir yu nekk la ci ëpp solo ndax moom sànkuk dund mësu koo nangu mbir mu nekk rek nit ki dafa war a dàkk la ca gën moo tax ci am njàngaleem faral day faral di day faral di wane mbir yu nekk yee ca gën kon loolu waxtaane ko dafa am solo ndax ñu war koo dégg dégg loolu nag euh, mooy tax liñ bëgg sottal ci àdduna ñu man koo sottal liñ bëgg sottal ci suñu diine ñu mën koo sottal te mu mel ne dañuy tollu jamono joo xam ne nag léeg-léeg ñuy jaxase lu war a jiitu ñu desal ko ginnaaw loo xam ne mën naa am soloom am na solo waaye soloom bariwut ñu jiital ko lool lool loolu nag kon bu ñu tollee ci jamono jooju di waxtaane tomb yu mel ni day am solo lool bu ñuy wax nag Euh, fiqul awlawiyaat yi ëpp solo kon mooy yi jullit yi war a def ci la ñuy wax waaye waxuñu li ñu def moom li sëriñ bi wax li mat a def li mëtut a def ak li ëpp def li mëtut a def li ëpp ëpp def moom bokkul ci waxtaan wi loolu moom waxe waxaale ko waaye yi mat a def lañuy seet yan yi ci war a jiitu ya ca war a topp loolu ñu xàmmee ko loolu moo am solo waaye moom waxe waxuñu moom la ma tuta def moom ak la ëpp def moom waxuñu ko bu ko defee rek ñu tënk ko noonu ñu ko leerale ci njëlbeen gi mooy ñu xam ko mooy lan ak soloom mooy fiqhul awlawiyaat xam ci joxe yenn ndax dafa laal dund gi yëpp kon mënuñu ko laal fépp waaye dañuy wut ay domaines yoo xam ne dinañ ko ci wane joxe ci ay misaal ak ni ko lislaam leerale la ñuy mujje nag mooy ndax bunt bu nekk bunt bu nekk ci lislaam rek boo ñëwee ci njàngalem Sëriñ Tuubaa da ngay gis ne ko yeesal indi ca loo xam ne dañ koy mën a jariñoo kon moo tax dañuy mujje bunt boobu mooy sëriñ bi moom bu ñu bëggee xool ci biirum njàngaleem lan fiqhul awlawiyaat day mel ne mënees na ko cee mën nañ koo mën nañ koo gis mu fees ci lool kon bu ñu ko bëggee xamle xamle bi niñ ko waxee mooy rek mbir mu nekk am na martaba am na daraja ci diine mbir mu nekk am na daraja ci diine am na martaba ni nga gisee ahkaam charia yi mooy atte yi ñu naan la lii farata la lii sunna la lii ñu sopp la kon am na ay degré fiqul awlawiyaat nag mbir mu nekk mooy ñu xam na mu war a toftaloo lañ ca war a jiital lañ war a jox priorité loolu mooy fiqul awlawiyaat moo xam ci atte yi la moo xam ci jëf yi la moo xam ci jikko yi la ci valeur yi ci lu mu mën a doon rek lislaam am na nu mu ko tërale xam tër tëriin wa ba noppi di sàmmonteeg moom ci suñu dund loolu mooy dëgg-dëgg fiqhul awlawiya ndax bu ñu ne fiq mooy fahmu dégg waaw dégg lan mooy suñuy priorité loolu nag mën naa yaatu lool domaine boo dem mën na faa am boo demee ci ñay politique am nañ ay priorité boo demee ci wàllu économie dana am ay priorité fu nekk waaye nun dañuy gën a waxtaan ci wàllu diine ni lislaam tërale ay priorité ñu war koo xam kon dëgg-dëgg fiqhul awlawiyaat mooy doo jiital lu am solo bàyyi fa la ëpp solo waaw la ëpp solo ngay jiital teg ca la am solo la ñàkk solo moom waxee su ko waaye ñaara ngi nii am na bu ëpp solo boobu la war a jiital ndax ni ma ko waxee léegi suñu borom subhaanahu wa taala moo junj ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam junj ci xadis yu bari wane ne jëf yi yemuñu jëf yu baax yi yemuñu bu ñu demee ci alquranul karim suñu borom mi ngi wax ne ajaaltum siqaayata alxajji wa imaarata almasjid alxaraami kaman aamana billahi wal yawmi alaaxiri wa jaahada fi sabilillah laa yastawuuna inda allah kon toppatoo ñiy aj toppatoo kaaba gi loolu lu baax la jëf ju baax la waaye nag yëmut ak wéetal suñu boroom ak jihaad ci yoonu yàlla ju xeexal mooy ñaar yu am solo ngi nii waaye nag yëmunu fa yàlla kon loolu dafa mat di xam am na ñaar yu am solo waaye am bu ca gën a ëpp daraja yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom it ci xadis yu bari mu ngi ñu ko ciy jàngal am na xadis bu ma tuddoon bi may ubbi te mooy al imaanu bidon wa sabuna euh, ba kon day wane ne am na yu gën a kawe ak yu gën a suufe waaye yépp yu baax lay doon yépp ci gëm yàlla la bokk lépp ci diine la bokk loolu ni mu ñëwee ci alquran lay ñëwee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ahadis yu baree baree bari dañuy gis yonent bi ñu laaj ko la jan jëf moo gën léeg-léeg mu ne jëf sàngam moo gën léeg-léeg nit ñi laajaat ko ne ko jan jëf moo gën mu ne ko jëf sàngam moo gën loolu boroom xam-xam yi dañ ci dégg ne jëf yi dañuy gënaante ñoom ci seen bopp waaye léeg-léeg danañ gënaante ngir nit ki dellu ci nit ki par rapport ak nit ki léeg nit dana am jëf ju gëm gën ci moom jeneen am keneen koo xam ne jeneen jëf mooy gën ci moom jeneen kon gënante bi it dégg gi it foofu da am solo lool yonent bi aleyhi am na ko ko mas laaj ne ko ayul amali afdalu mu ne al imaanu billahi wa rasulih jan jëf ci jëf yi moo gën mu ne gëm yàlla gëm ab yonentaam ndax loolu mooy cosaan li mooy fondement bi nga xam ne ci lépp du tabaxu qiila summa maada mu ne al jihaadu fi la jihaad ci yoonu yàlla qiila summa maza lu ci topp mu ne xaj xajjun mabruur aj gu ñu nangu gis nga foofu tegal na fi jiital na fi gëm yàlla eh, teg ci jihaad teg ci aj waaye ni ma ko waxee léeg-léeg keneen laaj am na ku mës a ñëw laaj ko ila nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëggoon a dem jihaad yi woote nañ xare ku ne xam ne xare ni mu amee solo ci lislaam bi lislaam di taxaw gis nga li ñuy wax ci shahaada faatu ci axare liñ ci wax lépp ci eh, ni ko jullit yi daan wute waaye kooku bi mu ñëwee ci yontu bi alayhi salaatu wasalaam di ko tàggu da ko laaj ne ko axayun waalidaak ndax sa ñaari waajur ña ngay dund mu ne ko waaw ña nga fa mu ne ko kon demal nga jihaad ci ñoom ñaar gis nga foofu kii moom dem taxawu ñaari waajuram moo gën ci moom mu dem jihaad yi kon dañuy gis ne léeg-léeg mbir mën naa gën waaye am nit koo xam ne leneen mooy gën ci moom loolu moo tax ci diine am am kilifa am solo am kilifa am solo ndax léeg-léeg ba nga bëgg lu baax bu am yéene mais sa kilifa mën na laa gën a xam yow li gën ci yow mu digal la loola nga war caa nekk moo tax ñi ku am ñi amul kilifa da ngay gis rek dañuy tañaxu léeg nekk ci dara sonn ca ba nekk ci ay at ba mu yàgg nga bàyyi ko dugg ci leneen ay at ba yàgg nga bàyyi ko dugg ci leneen ay at ci lépp ñàkk kilifa gu mat kilifa léeg-léeg moo koy waral kon fiqul awlawiyaat xam mbir yi ni mu toftaloo ni mu war a jiitoo sax na ci alquranul karim sax na si njàngaleem yonente bi alayhi salaatu wasalaam misaal yi bari na waaye dañ ciy tudd ñaar yooyu rek solo sim am nag ci suñu dund euh, lu mat a bàyyi xel la ndax ñàkk ko ñàkk am dégg-dégg boobu ci la li war a jiitu ak li ëpp priorité dafa bari coono yoom ñooy teg ndax jëf yu baax yi daa bari ñi bëgg lu baax di ca jéem bu ñu xàmmeewul man ngaa nekk ci loo xam ne yaa ngi kay sonn fekk te am na loo xam ne moo ko gën loolu nag xam ko dafa baax ñàkk koo xam léeg-léeg muy feeñ ci suñu biir dund gi nga gis ñun ñuy jiital loo xam ne am na lu ko gën fuuf ëpp ko njariñ donte loola baax na ñu nekk ci jamono boo xam ne am na lu gën nga bàyyi la gën di def la nga xam ne euh, moom moom lañ gën misaal yi ñu ci mën a joxe bari na duñ ko duñ ko guddal ndax ku ne xam nañ ko suñ dund gi moom loolu moo ci fees waaw da gis nuy def loo xam ne du farata soññ sonn ca lool lool lool bàyyi ay farata waaw ca farataak lu dul farata mënu ñëw yem waaye da gis noonu nuy sonn ci loo xam ne du farata donte lu baax la waaye neenal neenal farata mën ngaa gis nu fanaan ci ay jàng jàng yi baax na lool ba fajar jot ñu war a julli kenn ku nekk njibbi sa kër dem tëri bàyyi bañ a julli fajar ja wala nga nekk ca fàtte julli géeja géeja farata la loo mën a def rek farata moo war a jiitu léeg nag dangay gis dara nga yitteel ko ba far xaw a woyefal farata loolu dañ koy gis ci suñ dund gi nga gis loo xam ne moo ëpp njariñ donte li ngay def am na njariñ bu nit faatoo tey mën nañoo bàyyi ca kër ga koo xam ne ma nga tawat ñu war koo toppatoo war ko yóbbu hôpital war koo jëndal ay ordonnance jafe-jafe tax ñu bàyyi ko fa waaye bu kenn faatoo ci wet gi dangay ngay daal di gis ñépp mobilisé wu ñu daal jëndi nag jënd lu maanaam def fa loo xam ne genn wàll nga fajoon na ka tawat waaye ka tawat moom fa lañ koy bàyyi boo wutul mu fekki ka faatu loolu kon ñàkk bàyyi xel ay priorité moo ko waral léeg-léeg nga gis ci suñu réew yi ñoo xam ne li ñuy def baax na sax waaye am na yu baax yu de yu dend ak ñoom ca duñu ko def waaw da gis koo xam ne masalan mën nga ne koor gu jot dana dem umra ji def ci ay millions masalan ci ko mi ngi dend ak koo xam ne tey moo demee amul lu mu fajoo wala amul lu mu lu mu ndogoo sax te nga xool li nekk ci njariñ ci dimbule woon kooku léeg-léeg nag nit ki xolam lay topp waaye boo xamee na la di neex ci sa di neexe ci sa xol boo xamee ni la lii di war a neexe ci sa xol dimbule koo war a dimbule loolu war naa neexe sa xol ni nga mën a dem màkka dem ca kaaba ga la muy neex neex ginnaaw yow mos ngaa dem nga fa ñaari yoon ñetti yoon la ngay def ak naafila la te mën naa am yaa ngi bàyyi farata ndax wa taawanu alal birri wa taqwa damay wax ne ni yàlla digle ndax loolu fi'lu amru la maanaam ndigalul suñu borom la ndigal usuli yu dañuy wax ne bu amul lu ko soppi rek farata lañ koy jàppee ndigal lu yàlla digle farata lay doon kon yàlla digle na julli nga ne farata la digle ne koor nga ne farata la digle ne nangam nga ne farata la noonu la diglee ngeen dimbuleente kon dimbuleente farata la léeg-léeg nag nga topp sa sa sa bëgg-bëggu bopp ba bàyyi dimbuleente googee di def leneen li ngay def mën naa baax waaye du farata yaa ngi bàyyi farata yaa ngi bàyyi farata ndax dimbal dimbale koo war a dimbale faraday farata du coobare lii ngay def nag baax na lool bari na tuyaaba waaye coobare la kon li ñuy def ci suñu dund muy jël masalan suñu xew yi ni ñu ko fonke danga gis koo xam ne njabootam nga ca daara ja suñ daara bi di ca sonn lool di leen dundal day toog at du mën a jox sëñ bi ñaari junni waaye bis bu amee ngénte dana ca def téeméeri junni kon awlawiya foofu lan mooy gën a priorité fi ne ci moom toppatoo njabootam waxuma la sax doom ya nekk doom ya nekk ca daara ja waaye mën naa am ki am gone sax mi ngi ak wéradi ak doom ji mi ngi ak wéradi koo xam ne la muy def ca xew ba da ko war a def ca faj leen ñoom waaye far da faral gis ñu di ko wax dangay ngénte ba xëy suba loo jënde saabu walla loo jënde fonde doo ko am kon loolu maanaam fahmu dégg awlawiya ay priorité léeg-léeg moo ñu ko waral ndax loolu li koy waral mu xaw a jafe mooy day law ci société bi ndax bu doon aju ci nit nit nit nit ki lay lay dellu dana yomb waaye léeg-léeg day am loo xam ne société bi ñoo la koy gàll am loo xam ne boo ko bëggoon a def say jigéen ak say mbokk ak ñooy ñëw ne lii bu ñu bu ñu bu ñu teg gàcce ba tax nga def loo mënut wala loo war def fekk am na lu fi gën lu fi nekk mais ñoom gisuñu loola waaye ñoo lay teg yow nga fekk si leen ci bañ a def bañ a def faratal ñàkk xam lu luy priorité feeñ na ci bu ñu xoolee léeg-léeg nga dégg fi ñu yëkkati ay débat yoo xam ne ci yu ñàkk fayda ñépp di ci wax bàyyi fi yoo xam ne yu ama am solo la kenn du ko wax loolu moom Eh, gis naa kuy ku bind di jàmbat concours bi jàlloon ka bi ñu xëyee journaux yi daa mel ne dañu dara xewut muy jàmbat ne ne bu doon ku gañe leneen la ci ci ci ci ay way walla ci ci ci ci sport journaux yëpp bu ñu xëyee dañ koy bind ak lii ni mu rëyee loolu mooy jafe-jafe lan mooy awlawiya ci nit ñi ndax ñay bind seen i journal dañuy jaay su fekkoon ne nit ñi nit ñi lii lañ def seen awlawiya seen priorité ñoom foofa la ñu jëm waaye dañoo dem ba xam ne nit ñi fii lañ jëm moo tax fa la ñuy jëm kon mbir mi yàqu-yàquuk ñàkk dégg ay awlawiyaat moo jur léeg-léeg nattukaay yi sax day yàqu far suñuy nattukaay ji boppam moo dul baax waaw suñuy nattukaay mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy dem ba am jafe-jafe ngir ñàkk dégg fiqul awlawiyaat boobu moo tax nga gis ñu réyal lu ndaw tuutal lu rëy loolu ni bari na lool suñ jamono ji réyal lu ndaw tuutal loo xam ne lu rëy rëy la fekk lu ñu war a jiital ñu ginnaawal ko fekk loo xam ne war nañ koo ginnaawal ñu jiital ko waaye yi may wax yi yëpp nag mooy yu baax ci yu baax ni ma ko waxee woon li ëpp a def moom ak li ma tut a def moom kenn waxaale wu ko moo tax am solo fiqul awlawiyaat ni mu amee solo ci diine même ñi nga xam ne mbirum àdduna lekk rekk leen ñor sax dañoo wax ne nit ki war naa bàyyi war na ko bàyyi xel ca la muy def liggéey ya muy def nga gis dañ lay wax di la jàngal ne la boo bëggee mën saytu say mbir da ngay fexe ba ràññatle li ëpp awlawiya li ëpp priorité nga xam ne dangay ngay classé mbir yi dañ naan la ñeent la am na loo xam ne lu am lu yitteel la lu jàmp la ak loo xam ne lu yitteel la waaye jëmput am loo xam ne jàmp na waaye yitteelut am loo xam ne moom jëmput yitteelut yooyu yëpp war nga koo xàmme li ci sa kanam am na lu jàmp lu farata lu ñor loolu da nga caa war a daal di jublu bu ko fa bàyyi di dem ci loo xam ne farata la ñor na waaye jëmput loola da nga ko war a nos planifier ko ba bu jotee nga def ko waaye li nga war a jiital mooy li jàmp ba noppi di farata am loo xam ne jàmp na lool waaye nag du farata loola it waru laa yàqal say farata loolu moom fexeel ba wut koo ko def loo wala nangam nangam comme jàmp na waaye ginnaaw du farata bu mu jël sa waxtu la nga xam ne nag jàmput te du farata loolu moom waru laa yitteel sax nag loolu moom waroo caa sànq sa benn waxtu ca jëf yi ñoom dañuy wax ne li ci sa kanam ñeent yooyu la mën a doon jàmp na farata la jublu ci jàmput waaye farata la waajal ko jàmp na waaye du farata def loo ko keneen wala nga fexe bañ def ko te yow nga nekk ci li nga war a nekk jàmput du farata bum la yàqal dara loolu boo koy def sa waxtu loolu nag ni nga koy defee ci li ci sa kanam ci sa wàllu diine bàyyi ci xel yooyu dafa am solo farataa ngi nii loo xam ne lu baax la waaye du farata jiitalal farata ji ba noppi doo ko def lu baax la nga xam ne du farata hmm? yii farata am na ci yu yaatu am na ci farata joo xam ne dafa yaatu am na ci farata xam ne moom da nga ko war a def a waxtu la am boo xam ne waru ko waru koo génne kon jublul ci wax li nga xam ne farata la ca nekk ci waxtoom nga jublu ca bàyyi li nga xam ne farata la waaye jotagut nga walla wala boog yaatu na mën nga ko def ci yaatu nga def ko kon yooyu yëpp lu nit ki di war a bàyyi xel la buñ bëggee joxe nag ñu xool yenn majaalaat wala yenn domaine yoo xam ne dañuy xool ni ci lislaam jàngalee ay awlawiyaat muy ay priorité bu ñu xoolee tàmbulee ko ci wàllu xam-xam wàllu xam-xam lislaam lim ñu jàngal mooy xam-xam ak jëf ñoo fi nekk mu ne dangay jiital xam-xam ci jëf xam-xam mooy priorité ci jëf waaw loolu Sëñ Tuubaa wax na ko fu baree baree bari yéen ndaw ñi yéen waxambaane yi bu ngeen ragalee gàcc ëllëg na ngeen jiital xam ci jëf loolu danañ danañ ci ñëw ci kanam waaye lislaam moo ñu njëkk a moo moo njëkk jàngale loolu am na xadis boo xam ne yonent bi sallallahu moo ko wax euh, wala boog lañ koy askanale day wax ne al ilmu imaamun wal amalu xam-xam moo war a jiitu la ko war a topp mooy jëf jëf doog caa topp imaam Buxaari ci téereem Euh, ci saxiixam bi dafa am bunt boo xam ne na mu ko euh, tudde titre ba mooy al ilmu qabla al qawli wal amali al ilmu qabla al qawli wal amali buntub xam-xam moo war a jiitu wax moo war a jiitu jëf léeg-léeg nag wax moom la jiital ci xam da dégg sax ñu naan ñi ñi ñiy wax sax sama classe gi wax mooy ñi xamut ñooy wax mais ñi xam ñoo noppi kon nit ki balaa war a wax daa war a xam ba noppi doog a wax balaa jëf daa war a xam ba noppi doog a jëf waaw ni ngay natte benn domaine bu am solo boo xam ne nit ka dana ca jëf te fekkul mu xam ba noppi ñu nangul ko ko amut ku bëggoon a dem ne damay faj ab docteur laa bëgg a doon ci jàngoo ko ba noppi duñ la ci baax nekk noonu mbirum diine loo jiy def it da nga ko war a xam xëy na ñun li ñuy nax mooy nanga ko war a xamee am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne xa ni nga ko war a xamee moom da ngaa war ci téere sa ni ngay war a dunde sa diine anam goo ko mën a xamee baax na boo ko xamee ci jaar ko ci niñ koy tërale ci téere ñu tërale la baax na boo ko xamee ci yeneen yoon yoo xam ne mën nga faa jaar ba xam ko it baax na waaye xam moom dafa war a jiitu mooy priorité ci jëf te doonut loo xam ne luy wees la waaw waxtu wu nekk ak na nga war a xame imam imam Buxaari bi mu lu muy lu muy lu muy layale ne xam-xam moo war a jiitu da ko layale ci alquran ne suñu borom ba muy wax dane faalam annahu laa ilaha illa allah faalam allah xamal ne yàlla moom rek kay buur xam xam xam la jiital foofu waa innama yaxsha allaha min ibaadihi al ulamaa ñi xam ñooy ragal yàlla dëgg ndax xam-xam mooy tax nit ki ragal yàlla ca ragal yàlla googu mooy tax nit ki di jaamu yàlla kon xam mooy war a jiitu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxaat na ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin ku yàlla namm ci moom aw yiw dana ko déggloo diine dana ko jox xam-xamu fiq dana ko xamloo kon xam dafa war a jiitu kon xam mooy priorité ci jëf loolu moom dañ cee war jullit yëpp dañ ko war a maase xamandoo buñ ko xamandoo lañuy gën a yittewoo kon mooy fexe ba nit ñi ak xam yombuleen waaw xam yomb leen ndaw ñi ñu jàpp ndalal leen am njàng ndax buñ ci jëmalee woon yitte mu mën a yomb ndax ñeneen ñi nga xam ne àdduna rek a leen yitteel ñu xam ne xam-xam day farata jàng day farata ñoom dañoo fexe ba mu nekk gratuite dëkki dëkki dëkki tubaab bi seen xam-xam boobu xam-xam ne àdduna la xale yi ci toll gratuite lañ ko dañ ko def xëy nag ku bëgg privé moom am na waaye nun xam-xamu diine jàngum alxuraan mii léegi tey est-ce que am na fu mu nekkee ci gratuit am na de waaye mi ngi bëgg a cher mi ngi bëgg a cher te buñ defoon suñu yitte ci ñuy jàngale xam-xam ñuy jàngale alxuraan lañ soxla lépp mën a yemb kon gone yi mën nañuy jàng alxuraan te duñ ci sonn waaye tey ku am ñaari doom bëgg ñu mokkal alxuraan boo leen yóbboo ca internat xoolal lim lay a nga cay fay. dama jàpp naa ne alxuraan moom moo war a nekk public maanaam li ñu am lépp dañ ko waroon def ci ay jàngukaay alxuraan ak yor nit si alxuraan yi ba nga xam ne ku sa boom bëgg mu jàng jàng mu baax te gaaw doo ci fay dara kon nag def ndax mbir moom bu ñu ko defee priorité mooy lu ñu am lépp da cay jiitu da cay da dañ ko cay jiital kon xam-xam mooy awlawiya boo xam ne dañ ko war a jiital fexe ñëpp man cee àgg ñëpp man koo am am ku rafet ca duñ ca sonn buñ ko bàyyee nag kenn ku nekk di ko defal sa bopp nag ñëpp a ciy sonn ñëpp ci sonn te ginnaaw macha allah yow boo njabootee bëgg ñëpp mokkal alxuraan bëgg nga bëgg leen yóggul ci ci ci ci ci barab yoo xam ne kenn ku nekk la nga koy la nga koy joxeel dina takku te ñi la wër sax du jàpp ne loolu farata la fi ne tey su fekkoon ne yow boo amee li nga am da koo bëgg a def foofu ñu ñu jéggal la yeneen yi waaye duñ la jéggal yeneen yi ci des buñ jógee ci xam-xam ñëw ci ala jëf jëf yi ni ma ko waxee woon dafa am ay degare dafa am ay maratib dafa am yuñ ci nu yu luñ ci war a jiital boo ñëwee ci jëf dañuy wax ne jëf lañu war a jiital mooy baaxaay ba ci lañu war a jiital ci bariwaay ba maanaam jëf ji baaxaayam moom lañu war a jiital moom lañu war a gën a jox yitte ci ak bariwaayam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne inna allaha yuhibbu min ahadikum isa amila amalan an yutqinahu yàlla dafa bëgg nit ki bu dee def dara mu def ko ci anam bu mucc ayib kon looy def def ko ci ak anam gam gën a mate moo gën def def jo jëf joo xam day bari te du rafet na mu war a rafete loolu it lu mat a bàyyi xel la ci looy def seet la ca gën ndax bu ñu xoolee ak bari léeg-léeg alxuraan sax day dañuy ne bariwaay lu ci baree bari moom daf koy daf koy ŋàññi sax far ci ci ay anam bariwaay boo xam ne àndut ak qualité maanaam bariwaay boo xam ne àndut ak xam àndut ak dégg àndut ak jikko bariwaay boobu alxuraan daf koy ŋàññi fi barab yu baree baree bari bal aksaruhum laa yaqiluun walakinna aksara annaasi laa yaalamuun walakinna aksara annaasi laa yuminuun yooyu yëpp ay melokaan la yoo xam ne nit ñi buñ baree it te melokaan yooyu nekkul ci ñoom amul solo waaye am na melokaan yoo xam ne buñ nekkee ci nit ñi ñoom ñu nekk lu ñu néew néew néew ñooy ëpp solo ña bari lu mel ne nit ñi nañ buñ gëmee yàlla ñi gëm yàlla lu néew néew ñooy ëpp ñooy ëpp ñoom la suñu borom gën a jox yitte illa alladina amanu wa amilu salihaati qalilum ma ñi gëm yàlla ci ay def lu baax dañuy du dañuy nekk minorité minorité waaye gis nga majorité bi foofu amul solo wa qalilum min ibadiya shakur kon loolu day wane ne li ñi fokk mu am ñu bàyyi xel aw melokaan bàyyi xel ci jëf yi ak rafetaay ak baaxaay nit ki nga julli ñaari ràkk yu gën yu rafet te sell dañuy wax ne mooy gën nga julli ràkk yu bare bare bare bari te ba nga koy julli danga koy cof doo ko julli julli bu baax wala ba nga koy julli sa xel du ca nekk yaa ngi ci yeneen di julli di sëgg ka sigg fekk te mën naa bari lool ca julli woon ñaari ràkk yoo teewlu teewlu sa boroom ànd cee xusoo loolu mooy ëpp mooy ëpp doole jàng alxuraan man jàng lu bari foofu moom borom xam-xam yi dañ naan ah ah jàng gi jàng jàng jàng bu bari day baax na ndax ginnaaw araf wu nekk danga ci am tuyaaba kon bu gaawee bari it baax na waaye nag euh, danañ ci sëñ bi moom ak tànnam dafa mel ne bu àndeek settantal ak teewlu ci ki ko xam néew gi ànd ak teewlu ak teeylu ko ak jox ko ak xam mooy gën bari gi te loola du ca ànd jëf yi kon loolu nattukaay la ci looy jox priorité mooy qualité ba ci jëf yi ak melokaan ba ak baaxaay ba beneen nattukaay it mooy jëf ji gën a sax moo gën jëf ji nga xam ne danga koy def benn yoon bàyyi bam neex la nga defaat léeg nga fàtte ko waaye li nga saxal ci lu baax donte dafa néew moo gën moom nga war a gën a jox jox yitte yonente bi aleyhi salaatu wasalaam moo wax ne ahabul amali ila adwamuha wa in qalla li yàlla gën a sob ci jëf yi mooy jëf ja ca gën a sax doonte dafa néew la boo gisee mag ñi daan yar lu mel ni ay awraat bokk ci jumtukaay yi ñu daan yare am solo gi mu am solo mooy ndax looy saxal lay doon looy saxal werdu moom wala nga gis ñoo xam ne waqf bi ñu am dañ koy saxal moom ala kulli xaal dañ koy def wird wi ñu wirdu ala kulli xaal dañ koy def bu leen rawee sax am na nuñ koy fayee kon loolu dafa day day daay dugg ci jëf ju baax joo saxal donte dafa néew waaw ki ngay dimbale nga di ko dimbal ndimbal lu sax moo ëpp njariñ nga dimbale ko ndimbal loo xam ne léeg-léeg nga dimbale ko léeg doo ko dimbale doon doonte lu baax la ñu bàyyi xale bu ñuy wax gënante mais ci biir yi baax la ñuy wax du caa gënu def lee dafa baaxul dafa baax waaye dafa am lu ko lu ko gën am na ku laajoon sayidatuna Aïcha ne ko yonent bi lu mu gënoon a bëgg jëf ju mu gënoon a bëgg Sayyidatu Aïcha nekku fa naan ko jëf sàngam jëf sàngam jëf sàngam dana ko yonent bi li mu gënoon a bëgg mooy lu nit ki saxal jëf ju baax ji nit ki saxal moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam a bëgg kon nag loolu dafa a bàyyi ci jullit bi xool yu baax yu muy def saxal ko donte dafa néew sax waaw beneen nattukaay it ci yu ñu war a jiital ci jëf yi mooy jëf coo xam ne njariñam daf lay jéggi day jéggi ki koy def àgg ci ñeneen jëf joo xam ne njariñam daf lay jéggi day jéggi ki koy def dem ci ñeneen jëf jooju moo gën moo gën moom lañu war a gën a jox yitte ci jëf ji nga xam ne ju baax la waaye ci yow la yem am na ci jëf yoo xam ne boo ko defee njariñ li ci yow lay yem waaye am na jëf yoo xam ne boo ko defee njariñ li dalay dalay jéggi yonent bi sallallahu alayhi wa moo waxoon ne ndax duma leen wax loo xam ne mu ëpp daraja wala moo gën ci daraja yi julli woor ak saraxe ala uxbirukum bi afdala min darajati salaati wa siyaami wa sadaqati ñu ne ko ah kay fu de loolu bëgg ngaa xam julli ni mu foore ci lislaam di ponk bi woor ni mu mel yàlla yonent bi ne ma yàlla ne man maa koy fayal sama bopp waaw loolu lan moo ko war a ëpp daraja mu ne islaahu zaatil bayni defar diggante bu yàqu defar diggante bu yàqu nga gis koo xam ni muy sonne ci yooyu waaye man naa am ay dëkkandoom yëg na ne seen diggante yàqu na waaye du yëg ne sax lu mu lu mu war a dugg la lu mu yëg ne sax lu mu war a jéem a defar la jàppul ne lu am solo la te fekkete gis nga ni mu amee solo ndax njariñ la loo xam ne daf laa jéggi dem ci keneen rawatina mu dem ci ay mbokki jullit yoo xam ne dañoo am diggante nga defare leen yonent bi da caa teg ne wa fasaadu zaatil bayni hiya alxaaliqa dig diggante bu yàqu nee na ñu ngi mel ne saatu ni muy wate karaw wala lañset ni muy def karaw nee na noonu lay def diine nit ki da koy yóbbu yonent bi alayhi waxaatoon na ne ahabul ahabu nnaasi ilallaahi anfaauhum kii yàlla gën a sopp mooy ki leen gën a ëpp njariñ kon am njariñ dafa baax wa ahabul amali ilallaahi azza wa jalla jëf jëf yi gën mooy nee na mbégte mbégte mooy dugal ci ab jullit wala jullit nga nekk ci njàqare nga fexe ba taqale ko njàqare la jullit am bor nga fexe ba fayal ko bor ba jullit xiif nga fexe ba tàggale ko xiif ba loolu lam ca teg mooy ma jóg dox ci yi nit moo gën lentikaaf ci jàkka ji xam lentikaaf ni am njariñ ak ni mu baaxe waaye nit ku am aajo nga doxal ko ca noonu la noonu la ko gënale kon loolu ci yi ñuy natte jëf yi gën a baax yi ñu war a gën a jiital yi ñu war a gën a bàyyi yitte leneen lu ñuy bàyyi yitte mooy jëf joo xam ne njariñ li dafay sax dàkk jëf njariñ li mën naa yaatu te du yàgg waaye am jëf joo xam ne njariñ li day yàgg na jooju it mooy gënati jëf ji njariñ li yaatu na waaye yàgg na kooku mooy gën jëf ji nga xam ne njariñ li yaatu na waaye yàggul jooju it mooy gën jëf ji nga xam ne baax na waaye njariñ li weesuwu la gis nga ni mu toftaloo jëf ji baax na muy njariñ li ci yem la yam ci yow la yam jëkko gën mooy jëf ji njariñ li jéggi na la dem ci keneen waaye ja gën mooy bu jé bu la jéggee jëm ci keneen it day yàgg loola muy li mel ne sadaqa jaariya wala lu waqf bi fi doon waxtaane maanaam nga def fi loo xam ne danga ko fi bàyyi ëllëg ñu di ko jariñoo jooja jëf moo gën jëf ji nga xam ne ki nga dimbale tey mu dépensoo ko baax na waaye ki nga xam ne defal nga ko loo xam ne moom waxtu wu nekk da cay mën a am lu mu dunde loolu moo gën a tee baax kon loolu moo lu ci nekk lool lañu war a gën a jox yitte ca la ca des donte yépp lañ war a jox yitte waaye kon kuy def man damay jéem a def lu baax naa natt li may def ndax njariñ li ci man lay yem wala dana ma jéggi naa natt ba xam njariñ li su ma jéggee ndax day daal di jeex ci saa si waaye wala njariñ luy wëy la loolu it lu mat a bàyyi xel